Nous avons solution am solution d'autant plus que nous avons commencé hier Mon ragal n'a ni buñu défé tay seen bi dina dinañ am des yu am ci nous hein? mi ngi puisque à travers nos voisin bi fay mom moo ko andil ñu moteur bi puisque mom fofu lay assistance benn budul bob bi nga fi tant soit bi bii Dangote andi dal liñu fi gis gisunu fi bu état gisunu fi ni mairie gisunu fi kenn ñii gouvernement kon donc bu Dangote bi lañu accueillir ni nekk ci ak ñom demb batay bo boo tay ci quartier bi amna ño xamanteni ñi ngi financer di étage am ño xamni ni dëkkatuñu ci souf am ño xamni ñi ngi lal ay kile comme suñu doyen bi ñom dañu lal pour di tek ay table pour lek ci la maison est tout près ici kon donc gisunu kenn ku dugg ci fi pour defal ñu ben action quand même que celui de Dangote. Un grand ouf pour nous quand même, en attendant de voir les conséquences. suñu teewaay nous moom euh, dafa dugg ci wàll boo une ni ngi koy responsabilité sociétale d'entreprise te ku xam Dangote di lu bees ci Dangote dafa nekk rek benn fan ci suñuy activité RSE donc suñu teewaay ce na ci loolu waaye tamit suñu teewaay méngoo ak li nga xamanteni mom moom la gouvernement du Sénégal woté fan yi ci ginnaw à travers le ministre de l'intérieur né bép bonne volonté bép citoyen ou bien entreprise mën na euh, lu apporter soutien am pour dimbali population yi nek en difficulté donc pour ces inondations là. fii ñu ngi fi indi logistique logistique bu ñu fi indi euh, mom pompe de dénoyage la pompe bo xamné mom wala mom moy wàccee niveau ndox wàccee niveau ndox. donc pompe boobu moom la ñu fi indi mu nekk pompe boo xam ne mu ngi tudd pompe Godwin donc marque anglaise la pompe bi moom capacité am euh, mu ngi nekk juróomi téeméeri mètre ci waxtu wu ne donc pompe bu am doole la donc moom la ñu fi indi donc ak tout ce qui va avec. bu fekkee amuñu benn jafe-jafe boo xamante ni euh, séntuwuñu ko woon en tout cas si point bi ñu nekk nii liggéey bi fii ba une semaine bu soobee yàlla. ndox bi dana wàcc wàcc boo xamante ni dootul nekk lu jafe lool si ñi nga xamante ni ñoo dëkkee fii nit ku nekk da ngay bale sa buntu kër ba pare booy dimbali di dimbali ñoo xamante ni xëy na sori nañ la ki la jege bokk si yow di liggéey si yow bu amee jafe-jafe tamit da ngay ñëw taxaw wan ko ne ko yëg naa la donc loolu moom moo tax ñu njëkkee fii waaye du fii rek la ñuy yem ndax am na keneen koo xamante ni tamit dëkk na fi moom it ndox mi xaw na ko laal loolu moo tax ñu tàmbalee fii comme moo gën a moyen difficile ñu njëkkee fi nga xam ne moo gën a xaw a tane après ñu dem song bi gën a difficile